non dama doon du ma ci wax sax mais foog ma wax ci Bart li moom balaa may dugg sama sujet sax damay wax ne moo koy déranger mooy Bart Sonko moo la jox mairie Dakar loolu moom da kay rey soo bëggee Bart la bu lekk nga bëgg mu suur nekk Bart Sonko moo la jox mairie Dakar léegi Bart nekk da bañ affaire traître xam nga traîtrise bi fekk kenn la commencé mooy si liste électorale yi li nga xam ne sax booy def CM2 mën nañ ko wala booy def CP CI CP maanaam parité góor ñëw jigéen ñëw góor ñëw jigéen ñëw ngeen ñëw def góor góor góor jigéen def lu leen neex booy foofu la traîtrise bi jëkk commencé mais nag am nga fële festival de Cannes Barth am nga fa place man su ma fàttalikoo sa yéen sa sabadoor boobu nga mel ni ku sol ngalax isaan yi di xataraayu ci bunt bi ndekete loolu yëpp Barth Barth doon joué film quoi non Barth tu fais un très bon acteur mais la metti mooy rek turu traître bi ñu lay wax mais loolu nga tu es un traître traître nga sa mentor traître la beneen la gën a métti mooy mairie mairie bi Dakar bi Sonko mon la jox de je suis de la mer de Dakar